ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom Tuuba ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom Tuuba ku yor bakkan waxal jërëjëf maam borom borom Touba. ku yor bakkan santal ki la moom mooy ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom Touba. ku yor bakkan waxal jërëjëf maam borom Touba. ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom Touba. si Bamba daa gore daa maandu bu ko neexoo. kenn du yor satala kenn du kaalaw bëre leen sant sëñ Tuuba ku yor bakkan war nga ni borom Tuuba ndama daa gore daa bu ko neexoon kenn du yor satala kenn du kaalaw bëre leen sant sëñ Tuuba ku yor bakkan war nga ni borom Tuuba sëriñ Tuubaay kenn ku ko kennal mu kennal la ba nga foo lambu daj fa la fa gën sant Serigne Touba. ku yor bakkan war nga ni borom Touba. Serigne Touba yi kenn bu ko kennal bu kennal la ba nga def foo lambu ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom Touba. Cheikh Saliou Mbacké sang bi. yow sa ay gidaane. Mbàkke sang bi yow sa ay gidaane Seex Saaliw Mbàkke sang bi yow sa ay gidaane santante moo ci des gore leen sant Sëriñ Tuuba ku yor bakkan war nga ni jaajëf borom Tuuba yoonu Sëriñ Bamba ci aw doo gëlëm te doo ree te gaynde gu la fi du Tuuba ku yow bakkan war nga ni borom Tuuba doo dajeek gaynde gu la fi du Tuuba doo dajeek gaynde gu la fi du Tuuba doo fi gaynde garab warta bañ suuxat murit warta bañ ndigal ku dem tooli xel kom jaaga am nga yoolu karbala ku dem tooli xel kom jaaga am yoolu karbala ku dem tooli xel kom jaaga am nga yoolu karbala ku dem tooli ga ca yomba kori ga ca maa yomba kori ga maa yomba fay na ko gore leen sant Serigne Touba. màggal fay na ko gore leen fay na ko gore sant Serigne Touba. màggal fay na ko gore leen sant Serigne Touba. fay na ko màggal sant Serigne Touba. fay waaw màggal gi fay na ko gore leen gi fay na ko gore leen sant gi fay na ko gore leen sant gi fay na ko gore faal sayar njaay biraan ja di cangaay faal bay naaru degen faal buur dëgg baayu lan la faal Seex Ibra coow li Seex Moodu Aminta Faal ñaari Baay Faal di ëkk ya ca xel kom jaaga mu Faal yaa ko Faal na Baay Faal yee li wër jannatul ma'waa Baay Faal yaa ko moom sakku maam Seera Faal Seex Moodu Aminta ya ca li wër jannatul ma'waa Baay Faal yaa ko moom faylam réew li wal jannatul mawa lay faala ko moom waaw waaw Seex Moodu Ablaay Faal borom Ndar Faal borom Ndar Faal baayu sëñ Seex Sey Faal borom Ndar Faal borom Ndar Faal tabax daaray Daaru Xudoos jaxel kom jaaga jaxel kom jaaga Ndar Faal ba jannatoo Baay Faal yaa ko moom lay lay la Seex Moodu Ablaay Faal ñaari Baay Faal fayfa adamu faylam réew li war jannatul mawa ana baay faal yee seex moodu ablaay faal borom ndar faal tabax daaray daaru xuddoos ca xel kom jaaga ndax ndar ba jannatoo baay faal yaa ko yaari baay faal yaaga nu fay lëm réew li wër jannatul mawaan waaw waaw alaaji baaraay mbakke danga ba alaaji baaraay mbakke danga ba sëñ Fallu mooy sa baay danga ba ay mbakke yaa baax ñaa alaaji baaraay Mbàkke danga baax danga baax Sëñ Fallu mooy sa baay danga baax danga baax ay Mbàkke yaa baax ñaanal noo alaaji baaraay danga baax ay danga baax Sëñ Fallu mooy sa baay danga baax alaaji danga baax ay Mbàkke yaa baax ñaanal noo waaw waaw alaaji baaraay baaraay Mbàkke danga alaaji baaraay Mbàkke danga baax si Fallu mooy sa baay danga baax ay Mbàkke yaa baax ñaanal noo Mbàkke yaa baax ñaanal noo Sëriñ Baara ay Mbàkke yaa baax ñaanal noo Alaaji Baara ay Mbàkke yaa baax ñaanal noo Sëriñ Baara ay Mbàkke yaa baax ñaanal noo akay jàmbaar ay Mbàkke yaa baax ñaanal noo akay jàmbaar akay jàmbaar ay mbàkke yaa baax ñaanal akay jàmbaar ay mbàkke yaa baax alaaji akay jàmbaar ay mbàkke yaa baax ñaanal